asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax di leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen yi ki leen koy defal di Pambour Lo ñu leen koy defal en wolof vidéo tey bi nag ñëw euh, ci loo xam ne yàgg nañ ñu ko laaj muy nan la ñuy jëndee ci Alibaba xam naa avant ñuy dem ci ordinateur bi pour wane nan lañ fay jëndee am ay leeral yoo xam ne moom lañ ci bëgg def ba pare soo ko def wane li ñuy jëndee euh, leeral mooy lan mooy Alibaba dafa am AliExpress am lan mooy seen différence différence mooy ñee grossiste lañ ñii détaillant ñan ñooy grossiste yi Alibaba ñan ñooy détaillant yi AliExpress kan moo ko moom ñoo bokk borom ki moom Alibaba moom moom moom AliExpress bi mu créé Alibaba objectif bi lan la woon euh, pour fësal ñi nga xamante ni ñooy entreprise chinoise yi muy PME yi peut-être des moyennes entreprises yi nga xam ne ñoo nekk Chine pour ñu am vitrine boo xam ne dañ fay wane li ñuy liggéey pour à travers le monde nit ñi mën a xam li ñuy liggéey pour mën di ñëw def ay commandes foofu ci Chine di ñuy livrer un peu partout le monde comme ni muy amee léegi parce que matériel yi nekk ci monde bi genn wàll yëpp wala gerte bagages yi chinois yi ñoom ñoo koy defar. Euh, loolu moo te loolu moo nekkoon objectif u Alibaba pour fexe ba euh, ñëpp xam chinois yi li ñuy defar pour mun fay def ay commandes léegi nag mu affaire boo xam ni am na ci muy lan. ñoom bi ñu demee ba ci kanam euh, ñu bëgg nag léegi tamit beneen plateforme boo xam ni euh, entreprise yooyu dañ fay jaay en détail ak ay commerçant dem di jënd ci entreprise dafa jaay en détail ci lañ li nga mooy Ali Express mais ñoo bokk même personne moo ko moom Ali Express Alibaba euh, moo tax nag bu ñuy def vidéo bi ci Ali Express la ñuy dem wane lu ñu fay jëndee parce que produit yëpp yi am Alibaba mi ngi Ali Express te Ali Express moom lañ tëgg pour jënd détail comme consommateur bi soxla dara dem jënd dal di utiliser loolu Ali Express lañ ko war a pour grossistes yi ak commerçant yi importateurs et cetera léegi nga gis nag ay ay boutique wala ay entreprise yu fay jaay par benn waaye loolu li ñu ci jublu mooy échantillon par exemple tey yow soxla nga commander par exemple benn téléphone. nga bëgg xam téléphone ndax am na qualité nga commandé fa benn kase suñ la ko livré nga jël ko xool nga gis am na qualité nga soogoon a commandé yu bari am nag entreprise yu fa nekk yoo xam ne ñoom nanguñ jaay par benn la ñuy commencé am yoon par cent sax la ñuy commencé voilà moo tax ñun duñu dem euh, jënd bi duñ ko defee Ali bu baax mais Ali Express xam ni benn site la benn personne moo ko moom benn entreprise bii pour grossiste yi la bii pour détaillant yi loolu rek mooy seen différence te comme ñun dañuy jënd pour utiliser kon Euh, site bi nga xam ne mooy AliExpress moom la ñuy wane mais ci euh, procédure yi ni muy demee c'est la même chose comprendre nga voilà loolu détail la boo xam ne peut-être ñu bëri lu ñu ko xam moo tax ñu profité aussi leeral laale ko voilà léegi nag am na loo xam tam bëggoon nañ ko si wax tuuti muy lan muy euh, jënd ci internet bi wala ko nit a def na nekk ni produit boobu amoo ko Sénégal loolu la ñuy recommandé ñuy bëgg di jënd ci internet jënd surtout ay Ali Alibaba wala AliExpress wala Europe wala faneen na la leer produit bi nga bëgg a jënd dafa disponible fii au niveau du Sénégal comprendre boo paree mu wóor la tam ba xam boo ko jëndee foofu li nga koy jëndee ak fay transport bi comprendre nga su ñëwee ndax du romb prix bi ñu la wax fii conditions yi su dajewul daanaka nga jënd ko fii moo gën su dee produit boo xam ne am na fii Sénégal nga jënd ko fi Sénégal day gën a moins cher que nga jënd ko à l'extérieur fayal ko li nga mooy transport ba mu ñëw ba nga jot si léegi-léegi euh, transport bi ñu dina wat produit bi ñaar wala ñetti yoon ba pare léeg-léeg mu tardé jours yu bëri bu dee da nga ko jënd Ali Express loolu tam ñu bàyyi ko xel beneen affaire euh, par exemple nga jënd benn article fii Sénégal euh, nga gis ni qualité bi baaxul nga ba son amoo qualité bu baax nga gis extérieur qualité bu baax jënd ko foofu loolu peut-être côté Europe ak États-Unis mooy gën tax may wax mais bu dee côté Chine moom yi ñuy jaay fi te baaxul Chine lay jógee ngeen bàyyi ko xel voilà yu baree bari lu ñuy jaay ci Ali Express Ali Baba qualité bi taxul mu demee noonu moo tax prix yu yomb loolu tam leeral buñ ci bëgg def la pour nit ñi xam ko tamit voilà mooy li ngay gis gars yi di jënd Jumia genn wàll gi li ñuy jaay Jumia euh, moo xam ay commerçant yu ubbi boutique foofu di ko jaay wala waa Jumia seen bopp produit yooyu mooy produit ngay gis AliExpress c'est la même chose mooy ñi importé Chine indi ko fii di ko jaayaat voilà su fekkee man mun naa koo jënd fii Jumia ñu livré ma ko sama kër ma jëndee ko par exemple dix mille francs fay léegi pourquoi ma koy jënd ji fële Alibaba 5000 ñoo fay libraison 10 euh, 000 francs muy 15 000 amul sens <laughs> loolu la yooyu ngay xool quoi voilà soo xoolee paramètres yooyu ba gis ni am na avantage nga dem jëndee ko Alibaba AliExpress ngay soog a dem jënd ko mais li may conseil daal moom lay def dem fa jënd pour jënd rek amul benn sens li ngay jënd économiquement dafa rentabilité ci yow mi nga xam ne yaay jënd voilà loolu mooy leeral liñ ci bëggoon def dem ci ordinateur bi nag leen. ni ñuy commandé article li nga xamante ni moom mooy Ali Express kon ñu dem. waaw léegi ñu ngi ci ordinateur bi lu ñuy def lu dul euh, ñëw wan leen ñaari site yi bi bu njëkk bi moo nekk nii moom mooy ji nga Alibaba voilà beneen bi si topp moo nekk nii mooy Ali Express boo xoolee ñu xaw a bokk rek voilà gis nga. bii mooy si bi nga xam ne moom pour détails yi moo ko gën a tax a jóg parce que benn at benn par benn article lañ lay defal defal prix yi après boo bëggee jënd yu bëri nga jënd yu bëri voilà moom jaay par benn benn pour jaay consommateur direct wala utilisateur direct moom moo ko tax a jóg bi nga xam nag moom mooy euh, Ali Baba comme li ñu leen ko moo ko tax a jóg voilà moo tax di nga gis yoo xamante ni des fois ñu defal la benn pièce parce que seeni euh, fabricant dañuy bëgg jaay euh, su forme échantillon pour après nga xool bu la neexee soo ko importé lu bëri am produit yoo xam da ngay gis nga dañ lay ki koy jaay da defal nombre pièce minimum yi comme pi genre jaaro bi nga xam ne genre kii la kurusu kurusu jaaro électronique yooyu di nga bi borom di nga cinquante pièces lay jaay minimum kii di nga dix ki kii douze pièces minimum voilà yooyu mooy différence nga moo ci am mais produit yi boo xoolee même produit yi nekk fee mais fee nag détail moo fay nekk dañu fay détail produit yi fii en gros lañ ko fi def ah, moo tax la ñuy dem pour def achat bu ñu ñëwee AliExpress nag comme achat bi la ñuy wane rek ñun exemple bi ñu jël nag du ñu def livrer Sénégal dinañ leen wax li tax parce que bu ñu def bu fekkee dañuy def exemple pour livrer Sénégal dañ koy daal di bàyyi ndaxte livraison Sénégal yi dafa seer moom bopp léegi ñu xool fii lan lañu bëgg a jënd dañoo bëgg a jënd benn euh, RAM lañ bëgg a jënd RAM voilà RAM lañ bëgg jënd RAM bu 8 giga après ñu sélectionné bu ñu bëggee 16 nga sélectionné mu nul carte euh, raam yi voilà. Euh, ñu xool defal nañu prix CFA nii prix CFA lañu defal léegi ñu xool par exemple bu dee RAM bi man laa soxla RAM bi mi ngi defal treize mille euh, quatre cent quatre vingt sept voilà moom la ñu defal ñu xool mais bu ñu cliquer dinañ mën a sélectionner parce que marque Kingston moom yàgg na defar ci ay mémoire RAM léegi ñu ñëw euh, RAM bi lañu bëgg a jël. léegi ñu xool defal nañu waa heureusement defal nañu option yu bari yaay xool fii bi nga bëgg a def léegi di nga sélectionné nañu 8 bi parce que moom lañ defoon ci recherche bi 8 giga RAM euh, mu defal ñu 2666 mégahertz léegi ñun dañuy dem sélectionné boo xam ni euh, wala ñu sélectionné ñaari 8 giga RAM voilà après ñu ñu sélectionné bi ñu def ci 2 léegi RAM bi lu mu koy jaayee prix bi 13487 léegi ñaata lañ koy livré fii Sénégal gis nga Sénégal mi ngi nii livré vers Sénégal. 27000 13000 la ñuy jaay raam bi 27000 ngay fay pour ñu livrer ko Sénégal dina ñëw su gaawee ba gaaw ci 17 jours su yeexee ba yéex ci 31 jours voilà AliExpress premium shipping aposte lañ koy jaarale bu gaawee dina def 17 jours bu yéexee mën a dem ba 31 jours yaa ngi fay daanaka euh, double bi la rek boo wala voilà mille nga fay daanaka double 27400 voilà. moo tax ñun du ñu du ñu def livraison Sénégal parce que même bu ñu bu ñu tàppee yeneen produit da ngay gis même bu ñu ñëwee fii ñëw euh, xaaral dinañ ñëwaat fii ci raam yi ñu ñëwaat carte SD carte SD parce que carte SD ak raam rek laa fi bëgg jënd voilà ñoom ñaar lañ fi jënd carte mi carte euh, micro SD micro SD sax laa soxla man micro micro mooy yu dugg ci biir téléphone yi voilà yu dugg ci biir téléphone yi bu ñu ci amee bu cent jëm kaw voilà ñu xool yi marque Samsung euh, xool Kingston ba xam dinañ ko fi am seen seen disque seen marque seen seen bos dina baax ñu dem ci seen disque yi xool parce que marque bu am doole la voilà léegi ñu xool hmm, defal nañ fa leen capacité 32 soxlawuñu 32 yi 64 128 giga 128 giga lu ñu defal 6000 ñu dem yokk def lan 32 euh, la 64 day arrière at ba léegi 128 64 128 128 voilà léegi ñu def cent 128 bi la ñuy def ma ma ma sélectionné ko léegi bii laay bii laa bëgg jënd muy carte eh, micro SD bu 128 giga laa bëgg jënd pour def ko sama téléphone jënd tam euh, RAM pour def ko sama ordinateur 8 giga RAM bi ñaar laa ci choisir léegi ñu njëkk fii ci euh, fii euh, li nga xam mooy microsd SD bi léegi lu ñuy def mën nañ cliquer fi ajouter au bu ñu cliquer ajouter au dina am benn affaire bu am fii benn détail boo xam ne après dinañ si ñëw parce que léegi-léegi choisir article ñoom ñu la duñ livrer sax Sénégal parce que site bi mën na détecter Sénégal wax la prix livraison mais nga dem bay choisir léegi jaaykat bi ne la man duma ma livrer foofu <laughs> loolu tam day am voilà mu wax ñu article bi ajouté nañ ko ci li nga mooy pañe bi léegi su fekkee mën nga dem xool pañe bi wala nga jënd beneen article comprendre nga léegi mën nañu xool dem xool panier bi pour ñu vérifier loolu ñu cliquer voir le panier bu ñu defee voir le panier gis nga mayuñu fen fu ñu sélectionné article lu tax lu ñu wax mu ne ñu le produit n'est disponible le vendeur ne propose pas la livraison à l'adresse sélectionnée maa jaaykat bii kat moom du livrer ci adresse bi nga sélectionné adresse ban la mooy Sénégal lañ def comprendre léegi lu ñuy def dañuy cliquer fii parce que comme prix day seer fii comme ni ma leen ko waxee woon livraison bi xam nga seer na bii du ma ko def livraison fii mais livraison maa ngi koy def livraison euh, par exemple tey euh, États-Unis mais bii carte bi dañ koy bàyyeekum en attendant léegi ñu ñëw ci carte mémoire bi. détails yi nag xam nga mënoon na ñëw rek directement jënd mais duñ def loolu dañoo bëgg nga xam lépp lu ci nekk pour nga xam exactement ndax jënd bi da koy jar ak du ko jar waaw loolu mooy objectif vidéo bi parce que ñun objectif yi du ay tuto ay cours la ñuy def waaw ay cours moom da ngay wax lépp li am ci mbir mi nit ki xam. comme du ñëw rek wan cuccap cuccap rek ne ko jënd nga fay nga jeex na nit ki après mu bëgg ko def am ay problème technique di la message di la message nga wan ko lépp rek ni muy demee moo gën comprendre nga voilà loolu mooy objectif bi. léegi bi nga xam ne mooy carte RAM bi euh, yi ñu bëgg jënd léegi moom tam mun na ñëw fi ñu sélectionné ñaar lañ bëgg yu huit waaw ñu cliquer fii léegi def na ñaari huit bu ñu wàññeekee di nga ñaari huit benn bu ne treize mille lay jar léegi di nga treize mille multiplié par deux lay daal nekk voilà. léegi euh, mu defal ñu livraison bi comme boo fàttali ko ji nga vingt sept mille quatre cent vingt euh, vingt sept mille quatre cent vingt et un moom la ñu defal mooy livraison bi comprendre nga léegi lan lañuy ñuy def moom tam dañuy def ajouter au panier pour xool bu ñu defee ajouter au panier voir lan lañu defal moom euh, indil nañu nañu moom dina livrer Sénégal mi ngi nii may nañ ñu sélectionné wax nañu moom dina livrer Sénégal léegi total bi article yi boo xool day nekk quarante trois dollars. frais livraison bi nekk 44 dollars mu def à peu près bi mu ko defee CFA lan lay nekk day nekk 54 391 mooy prix euh, produit bi ak li nga xamante ne moom mooy euh, livraison bi voilà bu ko boolee yëpp day nekk 54 000 léegi nag ñu jënd ñaari carte euh, mémoire carte mémoire yi ñaar yëpp matul vingt cinq mille ñu bëgg ko fay moog livraison bëgg ñu dikk cinquante mille xam nga loolu cher na. voilà seer na donte baax na carte mémoire huit huit ñaari huit giga la voilà parce que carte mémoire huit giga day jar après ay dix mille francs des fois voilà moo tax boo xoolee baax na voilà vingt mille lay war a toll fii prix yi moom prix raisonnable la mais transport bi moo raisonnable lu ba pare benn produit bi bu neen du ñu du ko livrer fii léegi lan la ñuy def ñu dañuy dem ñu sélectionner faneen voilà dinañ ñëw tam wan leen yeneen produit ngeen xool livraison yi wala sax ñoo njëkk loolu ba pare fii comme après dañuy ñëw rek dem changer def ko beneen adresse États-Unis daal di fay pour ñu livrer ñu ko foofu ñu wan leen rek pour ko ni ni ñuy jënd ngeen xam ko ni ñuy jënd nag moo valable boo jënd dëkk yëpp rek mais fii gis nga defal nañu produit bi di livrer Sénégal léegi fii dañuy ñëw ñu dem ci euh, am tëj fii fii ñu dem ci beneen produit ñu xool ñëw fii par exemple non yi ak carte bande caméra la pour carte pour caméra voilà ñu ñu ñu xool clé USB bi di jar mille francs ñu xool ko voilà clé USB bi yaa ngi gis 1000 francs lay jar moom lañ koy jaay jaay ci AliExpress voilà livraison bi lan la ñuy defal livraison gratuite vers le Sénégal di bi amul livraison de Chine à Sénégal via kay eh, ñaaw super économie for spécial good maanaam waaye <laughs> mën nañ loo jaay clé bi jaay la ko mille francs livré la ko Sénégal waane cinquante huit jours lay am pour mu soog a ñëw mooy lan mooy livré mooy balaa muy egg Sénégal ñaari weer lay def pour nga jot si loolu nag yaakaar naa kenn du ko jënd kenn du jënd benn affaire bu jar 1000 francs AliExpress xaar ñaari weer pour ñu war la ko livrer Sénégal voilà léegi ñu xool beneen produit tàpp fi ordinateur parce que ordinateur des fois gars dañ fi gis ay ordinateur yomb léegi-léeg ordinateur portable léegi gars yi dañ fi ordinateur yomb ko jënd mais leen di problème mooy presque livraison léegi bu ñu xoolee ordinateur bi mi ngi def cent quarante quatre mille lay jar waaw ñu dem xool ko ñu tëjee recherche bi fii xool ordinateur bi mi ngi jar cent mi ngi jar cent quarante quatre mille euh, am na huit giga euh, RAM voilà am na ji nga huit giga douze giga ñu xool bu seize giga bi waaw seize giga cinq cent douze cinq cent douze mooy mémoire euh, ordinateur bi bi mooy RAM bi voilà mémoire RAM yi bi capacité ordinateur disque dur voilà léegi ñu xool bi voilà. Euh, silba red la def bii silba bu xaw a métal ñu ko voilà léegi defal nañu fii cent quarante quatre mille quatre cent vingt sept léegi ñu xool livraison bi daf ñëw def fii livraison soixante trois mille mooy livraison bi voilà xam nga livraison bi moo koy seer léegi ñaata jour mu defal ñu livraison bi huit ba dix sept jours waaw bii sax tane na livraison bi damoo seer rek parce que livraison dong nga bëgg ci fay soixante trois mille pour Chine ak Sénégal. cher na te privé di jaar cent quarante quatre et quelques mille voilà loolu cher na ñu dem xool beneen ordinateur ordinateur bi euh, huit giga ram douze ñu sélectionné douze giga ram bi voilà cent quarante trois mille prix bi baax na trop ordinateur bi baax na cent quarante trois mille voilà mais livraison bi quarante mille la voilà livraison quarante mille daanaka euh, deux cent mille yi day day day daal di mat voilà comprendre te. doy na war la comprendre ngeen idée bi yaakaar naa léegi c'est clair livraison si Ali Ali Express ak Alibaba seen ay livraison mooy poser problème alors loolu la léegi bu ñu defoon ajouter au panier ñu xool ba xam sax bii dinañ ko livrer Sénégal te léegi lekk continuer vers le panier vers le panier ñu xool lan lañ defal ordinateur bi maanaam. waa dinañ ko livrer Sénégal voilà moom ñi ko ko soxloon mën ko ko am Sénégal léegi nag ñu supprimer ko voilà comprendre ngeen fekkee duñ ko livrer Sénégal fii lañ la ko wax buñ koy livrer fii lañ koy wax benn produit boo mënti sélectionné da ngay ñëw nga vérifier toujours nag ñaata nga cliquer fii parce nombre bi la lay def fii carte mémoire bi 128 giga bi comprendre nga lan lañ ci soxla benn kase lañ ci soxla mémoire RAM 8 giga ñoo ngi ñu koy jaayee maanaam benn bu nekk 21 virgule 67 dollars ñaata lañ ci soxla maanaam ñaar lañ ci soxla boo ko boolee ñaari muy 16 giga léegi nag lii mooy li xam moom lañ décidé jënd voilà boo bëggee ajouté beneen article tamit même chose par exemple tey souris bi euh, suuri bi nii souris gamer la mën naa ko ji boole dix 000 francs nga ma xool suur bu baax na sa suuri sans fil la quoi mën naa ko ci boolee maanaam ajouter au panier bu fekkee dinañ ko livrer mais de façon bu bañee Sénégal tam dinaa choisir benn adresse gis nga suuri bi borom def na du livrer Sénégal left moo médium du livrer Sénégal waaw mais nag loolu du problème léegi nag gis nga bii moo fiy livrer Sénégal ñaar yi nanguñ livrer Sénégal mais nag boo choisir ay produits yoo xam yëpp day livrer Sénégal c'est très simple nii nga nii nii lay demee nga vérifier nombre bi nga choisir parce que par par erreur nga cliquer benn produit deux fois mu sélectionné fii deux ñaar lañ la ciy livré su nekkee benn benn lañ lay livré toujours su dee nag par exemple tey souris bi damaa xool ni intéressé na ma ma ne ah souris bi kat naa ci jënd ñaar du soxla may demaat di waraat souris bi tàppewaat defaat ajouté au panier déedéet bouton plus bi laay ñëw ma cliquer plus ma cliquer plus di nga nee na ma deux souris lañ lay livré. su fekkoon damaa juum ma def deux damay cliquer moins su ma cliquer moins di nga ne ma benn lañu lay livré noonu ngay yokke fii mooy moins bi mooy wàññi bu dee daa ëpp plus bi mooy ngay yokk bu dee da nga bëgg beneen article du soxla ngay demaat ci page bi di wër su dee nag par exemple dama dem bay fay ma ne ah xaaral bii daal li ma ko jënd xaw na seer xaaral ma xool ñetti bu may wàññi naa wàññi disque bi boobaa fan ngay ñëw lii mel ni poubelle ngay cliquer nga supprimer boo cliquer supprimer nga cliquer retirer produit bi daal génn fii ci liste bi léegi nag produit yi nga bëgg jënd yëpp ñu ngi fii ba normal te choisir nga lépp vérifier nga ba amul benn erreur boo jënd fii nag doo ko jënd taf taf di dafay parce que boo xasee commandé ba pare moom erreur li jënti ko lu compliqué la moo tax bala ngay commandé jëlal sa temps nga xool exactement produit yi nga soxla lii description produit xool caractéristiques yi et cetera soo paree boo choisir ba ñëw page bi nga xam ne mooy pañe bi nga vérifier ñaata article nga fi am benn bu ne ñaata nga ci choisir ba loolu leer leer si yow nga soog a nag ñëw fii ñuy def paye bu ñu dee pour fay ci la ñuy defal nag léegi ñu créé waale compte soog a fay compte bi def adresse et cetera carte yëpp yëpp yëpp ba mu mat procédure bi parce que amuñu fi compte léegi comme dañoo wane rek comme koo xam ne mosul jënd ci Ali Ali Express noonu la ko defee nii utiliser wuñ suñu compte bi am nañ ko ba pare léegi procédure yëpp dañ koy commencé zéro comprendre nga léegi nag su ma defee ñu livré ma ko Sénégal gis nga li ma fi jënd yëpp daf may taxaw cinquante quatre mille benn suuri ñaari euh, euh, RAM mémoire carte RAM. ak benn euh, carte micro SD lépp euh, euh, xaalis bi muy jar li liñ ma ko jaayee ak liñ ma koy livré taxaw cinquante quatre mille trois cent quatre vingt léegi nag man dama bëgg rek mu dikk ma lu gën a yomb loolu cinquante quatre ñu jàpp ko léegi damay ñëw ma sélectionné bi lu tax ma ma bëgg mu gën a yomb parce que man am naa koo xam ni mën naa koo def ñu livré ko këram moom mu yónnee ma ko GP wala mu téyel ma ko fa ba heure bu gisee ku ñëw mu jox ko waaw kooku mi ngi nekk États-Unis foofu laa koy jaarale su ma amoon ku nekk France fa laa koy jaarale su ma amoon ku nekk Italie wala Espagne am naa sax ñu nekk Espagne ñu am naa fa ay xarit yu bari macha allah naa ko jaarale si ñoom ñu ñëw mais pour wàll la rek euh, boo dee Chine ak États-Unis des fois prix ci lay gën a yombe que sax Europe voilà moo tax comme am na ko fa xam ñu profité ci loolu jaarale ko fa kuy jënd tam nii nga am koo fa xam dama lay conseillé nga jaarale ko ci kooku kooku après su gisee Modou buy ñëw Zep mu joxal la ko su ko gisul am na GP ñoo xam ne dañuy jaabante foofu États-Unis Sénégal am ñuy jaabante Europe dëkk Europe yëpp ak Sénégal ñooñu def ay GP chaque semaine dañuy dem ñii dajale ay bagages jox leen ko fay leen ñëw indi leen ko ñu fay leen beneen semaine ba topp ñu dajalaat ay bagages fii jël vol dem ñooñu la wax ay GP loolu rek la ñuy liggéey te ñoom li ñuy fayee ko mooy gën a yomb voilà entre parenthèse la loolu. léegi ñu cliquer fii bu ñu cliquer ma changé li nga xam ne moom mooy pays def euh, mistake laay def voilà su ma ko choisiree ma def après enregistrer page bi war na chargé san kii dem su kii demee nag ñu demaat choisir ko voilà léegi page bi chargé na léegi produit yi yëpp désélectionné wu na lu ñuy def damay def sélection select all item maam may sélectionné produit yëpp laay sélectionné en même temps cliquer fii parce que dama def États-Unis livraison États-Unis moo tax automatiquement affaire bi changé def na ko anglais loolu kese su ma neexee mën naa ko def france voilà def États-Unis ba pare def ko France loolu si daal mais mën naa ko bàyyi nii parce que du poser problème waaw mais ñi ñi ñi suivre mën na poser si ñoom problème kon nañ ko def français rek voilà nañ ko def français voilà nekkul nag damaa dégg anglais mais su lu ma ci liir mën naa koo comprendre waaw loolu la mu ngoog voilà léegi def nañ États-Unis li ñu ko livré ba pare ñun euh, sélectionné nañ li nga xamante ni moom mooy euh, français voilà ñetti produit yaa ngi ni ñu vérifié waat benn souris souris gamer benn carte RAM ñaar voilà li nga xam ne mooy seen disque bi muy mémoire et micro SD pour téléphone yi euh, benn voilà loolu leer na léegi damay fay. fay bi nag xam naa du ma utiliser comme comme jox na ma option paypal gën na dinaa xéewali comme sama paypal mooy gën a yomb pour ma jaar fa dugal wala dugal carte léegi ma def paypal ma def euh, paye <laughs> damay fay bu damay fay mu ne ah yow kat amoo AliExpress compte da war a créer compte mën ngaa créer compte ak sa compte Apple mën ngaa créer compte ak sa compte Facebook mën nga créer compte ak sa compte Twitter mën nga créer compte ak yeneen yooyu yan la boo cliquer fii mu ne la nga dugal sa email ak sa mot de passe comprendre te nga bu la si neex nga créer compte léegi nag man damay def damay créer compte ak sama compte Google bii voilà cliquer fii compte Google bi laay créer compte léegi day soxla nga dem connecté sa Google voilà daal di autoriser AliExpress pour mën laa créer compte boo xam ne day basé wu ci sa compte Google créer la compte léegi ñu cliquer waat yi nga article ya désélectionné na ñu cliquer waat fii sélectionné. yii yëpp lii ñuy def nag mooy booy jënd première fois la comme sélectionné ba créé compte gi boo xasee créé compte ba jënd fi benn yoon ba enregistré sa mode de paiement jeex na boo soxlaatee ay produit looy def sélectionné produit dem fay jeex na directement waaye li première fois bi la rek léegi ñu ñëwaat cliqué waat paye cliqué waat paye comme def na ko ak suñu compte Google automatiquement ji ngi di nañu page bi ñu war a demee lu mu ñu defal adresse de livraison ajouter nouvelle adresse waaw pour adresse bu bees bi nga xam fa lañ bëgg ñu livrer ñu produit fa la ñu war a choisir ñu cliquer fii parce que amuñu fi benn adresse léegi bu ñu cliquer fii mu bind fi fii prénom bi voilà remplir na adresse ba pare lu ñuy def choisir ko adresse par défaut coché fii daal def confirmer bu ko defee adresse par défaut mooy après loo jënd rek foofu lañ la koy livrer voilà ñu cliquer fii confirmer voilà bu ñu cliquer léegi dugal nañ suñu adresse confirmer ko gis nga adresse moo nekk nii dugg na lu ñu defal fii mooy de paiement ñu sélectionné ban ban méthode lañ bëgg a fayee ñu cliqué fii bu ñu mu demande nañu ban méthode léegi mun naa def su ma neexee ma def carte crédit directement bu ko defee ñu dagg ko directement sama compte banque su ma neexee ma def paypal parce que am naa paypal waaw yeneen ñaar yi wu ma leen voilà. léegi nag euh, paypal bi mooy gën a simple day tax doo dugal sa carte crédit ci site bi waaw mais nag site bi tamit site bu am sécurité la ñu xam ko dugal sa carte crédit wàññiwul dara parce que bi am na sécurité mook Amazon ñoo yem waaw loolu tam ñu xam ko voilà mais pour exemple bi paypal laay fayee parce que yoon naa paypal waaw parce que moo gën a simple def pay ak paypal voilà léegi damay connecté wu sama contre paypal directement dama jëli sama email ak sama mot de passe dugal fii sama def suivant dugal e sama mot de passe afficher mot de passe e e def suivant waaye ba def fois mooy gën a voilà notification validé mu jeex nee ma dañ lay envoyé code ci numéro bi ma def continuer dañ ma envoyé benn code pour pour vérifier ba xam man maa koy def. PayPal envoyé nañ ma notification deux cent vingt huit huit cent quatre vingt quinze deux cent vingt huit huit cent quatre vingt quinze continuer loolu lañ ma envoyé de deux cent quatre vingt huit fii laa jum deux cent damaa def ñaari deux deux cent deux cent quatre vingt huit huit cent quatre vingt quinze voilà maa def erreur. bii na xaw na gudd après nañ leen defal beneen commande boo xam ne après bu liy jàllee nga xam ne enregistré na ko duñ fi nekkat di enregistré yëpp dañuy defal benn commande rek wan leen nu muy gaawee voilà euh, définir comme mode de paiement préféré ma coché fii mooy sama mode de paiement préféré cliquer fii transféré voilà ñu xaar PayPal traité ko su jàllee te commande bi jàll na voilà paiement riche ji nga paypal moo tax ji nga dama leen di conseil ngeen ubbi compte paypal bu ngeen di def ay transaction parce que carte yi dafa bëri problème directement voilà léegi defal nañu paiement réussi merci nous avons reçu votre paiement léegi dañ koy traité pour envoyer commande jeex na aussi simple que ça voilà léegi nag ñu ne woon leen commande booy def boo xasee def benn commande bu compliqué muy bu njëkk ba pare léegi nga bëgg a beneen commande nu muy yombee voilà léegi ñu xool fii euh, loo xam ni intéressé nañu te du seer ñu yokk ko ci voilà ji nga jot naa notification ci sama compte banque UBA ah, envoyé na ma ne ma dagg nañ ci sa compte parce que PayPal sama compte la koy dagg versé ko waa AliExpress loolu la PayPal bi mooy nekk intermédiaire diggante AliExpress ak banque bi nee nañ ma dagg nee na ma dagg nañ ma cinquante huit mille cent quatre vingt neuf ah, loolu la moon léegi SMS léegi ma xool fii loo xam ni daal dinaa ko war a mën a soxla wan leen commande bi nu muy gaayo exemple loolu ma intéresse loo xam ma ko jëndee même bu ma ko soxla léegi léegi dinaa ko soxla ji daa Euh, chargeur rapide universel mm, ndax ma ne power bank la de am xool ko boo ko chargé ba mu fees coupé tam sa téléphone dina mën na di chargé je crois chargeur rapide universel 5 volt ampère 1000 milliampère batterie externe capacité pour téléphone portable voilà moom la kay voilà 1000 10 000 milliampère waaw kii mën naa ko jënd 8 euh, ñu ma defal 8 dollars voilà livraison gratuite kon naa ko ci yokk voilà acheter maintenant comme xas nañ xas nga jënd benn mu jaar normal acheter maintenant rek ngay def kii pour euh, batterie externe boobu da koy chargé boo ko chargé ba mu fees denc ko courant su coupé te sa téléphone déchargé mën nga ko utiliser kon kii dinaa ko soxla man léegi cliqué naa ko benn article la toujours nga vérifier benn article la léegi lan la ñuy def paye ak web paypal voilà jeex na waaw ñu wan leen deuxième commande baa ngi nii ngeen gis nag nii nii <laughs> bi gis ngeen ni voilà gis nga confirmé parce que enregistré nañ information yëpp voilà confirmation lay def nañu commande yàlla na voilà benn complication duñu ko laaj mi ngi nii paiement réussi voilà jeex na léegi ma jot SMS bi bu ñu ko daggee automatiquement UBA léegi ma jot SMS bi voilà léegi nag xaaral pass bi ma ajouté ko ci favori fii ci site bi voilà ajouté ko ci favori xam bu ma ñëwaatee di si dugg ba ëllëgee dem fii rek laay cliquer day day gaaw. voilà jot naa SMS euh, waa UBA envoyé nañ ma SMS nee nañ ma dagg nañ ma euh, sept mille cent trente deux francs lañ ma dagg waaw huit huit kii huit dollars et quelque la jar waaw dagg nañ ma ko sept mille cent trente deux francs comprendre ko voilà léegi jeex na nag nii mooy ni nga xam nii la ñuy jënd si AliExpress mais nag comme man euh, ji nga deuxième produit maa ngi livraison gratuite beneen bi njëkk yi maa ngi am livraison douze te maa ngi jënd njëgu soixante dix dollars am livraison douze dollars parce que dama choisir États-Unis pour euh, pays bu ñu war a livrer livrer produit lii yëpp su ma choisir doon Sénégal parce que malaa def may dëkk euh, deux fois boo xool xoolee njëgu produit bi lañ lay jël bëgg la ko fayeeku livraison loolu mooy lii nga xam moom moo si am léegi nag comme lii man heureusement tombé nag maam ku ma xam mën naa envoyé këram moom bu jotee bagage yónnee ma ko moo tax ma def ko voilà koo xam te am na koo xam France mën nga ko def bu dee Italie mun nga ko def parce que ñu Sénégal yu bari am majorité Sénégal yi Europe la ñu ëppee boo xamee kenn Italie wala France et cetera wala Canada wala Allemagne Belgique foofu yëpp mun nga ko utiliser waaw dinañ la fa livrer livraison boo xam ni dina gaaw kooku boo ko jotee envoyé la ko directement su tombee mu ñëw mu indil la ko su tombee wala mu ñëw mu joxal la ko GP kon vidéo bi fii lay yem xaw na gudd tuuti mais j'espère que nag leer na naa ñi voilà leer na loolu moo nekkoon objectif bi ñu ngi leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jël